Caato Yoff ñi may jàppanteel ñi nga xamante ni maa ngi jàppanteel ñoom si simple bi ni maa ngi bokk soog ñoom tamit ñoo ko ëpp doole foofu ñoo ko suuf xam nga kon nekkul loolu moo ñuy jaaxal wala moo ñu solo la. bi la seen mbër la moo tax ma liggéey si lépp li ma war a liggéey jox ko respect xam naa ne mën na maa daan moo tax ma liggéey si loo xamante ni daawu ko liggéey su may combat xam nga di ñaan yàlla yàlla suturaal ñu rek xam nga pare nan quoi. di ko ñu ngi musiba ak ngeen bëgg moo daan loolu yaakaar naa ne. Malick ba suuf kenn mënu ko daan moo tax ma xam ne man ni billaay walaay taala du yam mosuma kontaan ak moom mosuma jàppante ak moom mais bis bu ma jàppante moom billaay benn jàpp bu ma ko jàppee dama si kattanu suñu borom. maa ngi dégg nag muy wax di minimiser naan ay yokk supporter moo tax mu jël sama avance bi mu ko. loolu loo xamante ni mosu ko gis si làmb ñun ay xale lañ de te làmb dañ ko bëri ñun adversaire bi ñu am bu nekk xam nañ ni ñu bëri laa waxoon pour dajale samay supporters moo tax moo tax ma jóg n'est-ce mais man dofuma du ma ngaaka boole xam naa ne mbër laa dajal xam naa ne làmbkat laa dajal dama koy jox respect bu jeexee na damay liggéey li ma war a liggéey pour daan ko ci loolu laa nekk mais loolu fàtte naa ko ay supporters yi fàtte naa loolu de instant ma ko daanee laay xool. qualité yi ñoo bokkul xam nga qualité yi bokkul 15 combats la am benn défaite la am 14 yi ma daan yëpp bu nekk kaa sa morom bokkul. ñëpp ñi mos a bëgg seetaan naa combat yi ñi mos a bëgg ñëpp man dama leen a seetaan xam ne amul kenn ku ma sëb sañ-sañ a man li ma gën a li ma gën neex si wàcc moo nee damay wane le 8 janvier damay wone ngir yàlla rek li mu wax na dëggal boppam. ngir yàlla mu ñëw def loolu. ñooñu taxaw di wax ay foofu rek ay outsider mais bu ñu incha allah noonu dinañ xam dinañ xam ne làmb nekkul ay foofu rek ay affaire yooyu làmb du waxu mbër